wax nañ ko def nañ ko ndax nit lépp looy wax jëmale ko ci askan wi mu nekk lu dëggu da nga war a tenir sa promesse parce que Kaolack lañ dëkk tey ñoom bu ñu nekkee tey ñoom bu ñu nekkee ci jafe-jafe nekk ci ay difficulté ñun waa doom Saloum ñi nga xam ne yàlla dimbale nañu tey war nañoo ñëw jàppale leen tey yàlla rek tax ak aussi tamit ñu xam que aussi tamit ñoom yéene ki ñu am ci ñoom yene giñ ci am mi giñ am ci ñom moy dama ñewon fi taxaw ak ñom ne len carrément inshallah rabbi lima bëgg moy ndox mi jóge fi ndax gémmañ gu yalla xar dina ci def lek gémmañ gu yalla xar gune rek dina ci def waye nak mënu ñoo togg ndox mi nekk seen biir ba paré loolu manam mënu nekk ñu nekk ci jamm wala ñu xalaat wa khaxun wala ñu wala xalaat wa Medina Mabba wala ñu xalaat wa gawan donc nit buñ la jëlé jox la ndomba tank askan bi wolu la la fi waaye nag da nga wara def lo combat li ma la wax maanaam askan bi dañ cee war a gis seen bopp. tey nga indi naa fi ay moto pompe maanaam lu dool maanaam six moto pompe laa indi maanaam ci quartier yi am na quartier yoo xam ne dañuy am waaye fii nga xam ne mooy xaaxun fii la affaire bi gën a grave dañ fi bàyyi trois ak cent moustiquaires ndax aussi tamit maanaam yooyu dañ maanaam ndox ak yoo ñoo dëkk mm-hmm. donc boo génnee ndox yi ba pare il faut nga jox leen maanaam moustiquaires yu ñu tëdd ndax béy say weewu tànk jambar seigne Abdoulaye neena jambar amuñ kuñ dimbalé dimbale am ñun ñi ñëpp dañoo dimbalé bañ tollu fii ñu toll donc nak war nañu gesso askan wi ndax chaque jour son excellence monsieur le président de la république da koy wax donc nak dañoo wara jappalé askan wacc sur le terrain bay wax ma manam bay politique yi ñu nekké politique di naxanté politique di wax lo neex wala politique bo xamé da ngay ñëw di jappé nit ñi ñoo manam nit ñi ay doomu adama li dañuy dundu té dañoo wara dundu ñi ñu jox responsabilité fi ci kaw nak nañ wacc wàcc responsabilité ñi ñu leen jox ñu dimbali ci jaamu yalla yi ndax jaamu yalla amuñ lu jaamu yalla yi ñom bu tëddee seen kër ay climatiseur lañuy ñuy tëdd seen auto climatiser ñom jaamu yalla yi nekk fi ni dañu am sa problème wontay buñu ñu na leen waxante deug et l'heure du réveil a sonné ñun nak ay ndaw lañ ndaw yu déterminé am fit ragaluñ am nañ nak suñu moyen ay xal lañ waye yalla dimbali nañu am moyen té dañ ko ci def ba yalla jël suñu bakkan ci carton yalla carton yalla lima ma rek inshallah bi lol moy am ndox mi dina genn ci kër yi ci kàttanu yalla bu génnee ci kër yi ba pare ñu jëm a benen solution bo xam ndox mi dina fi juggé bi ni bi nek ci mbedd mi ndax ndox mi nek ci bi kër yi bu genné ñom dinañ mëna a seen kër li nek ci mbedd mom dinañ ko mëna gérer. ndax lancer nañ le projet PRA ORSEC té inshallah rabbi lepp luñ ci wara def son excellence jël matu way ba mat sëkk té dañ ko def ci kàttanu yalla té nak buñ ko téggé ci loxo nit ñi nañ ko indi ci askan wi nañ bay li ñu jox ñu téggo luñ leen jox nañ ko ñew tekku ci loxo askan bañ ko lek ndax aussi tamit nañ bàyyi maanaam nañ bayyi luñ leen jox pour ñu ni ko askan wi bu dé à 100 ñu indi 50 yene cent 50 ñu damu ko seen boy ba bari gën a reey la meñ nañ arrêté lolu nañ arrêté lolu lolu nak mom il faut ñu manam plan orsec bi ni ñun suñu bakkar lañ ci tek lepp luñ ci def nañ ko xam te bu bop ma manam lepp luñ ci xam tamit nañ taxawat ci radio beeg télé bi waxo suñu mëna xexex yow sax nañ xexex ak yow ndax am nañ fit bi te ragaluñ njëmbat ko wol way ndenkaane kala doy booy may da ngay may ku la neex waaye booy dénk dangay ngay ko koo wóolu loolooy waxu mag ngir yàlla dama bëgg ngeen ubbi seen i bët xam li xew xam ne aussi tamit maanaam bu leen nangooti ku leen nax ci àdduna ut leen ku leen yërëm ut leen ku leen yiir ku leen aar ku leen protéger ndax ndax maanaam nit biy ut ma maanaam biy ut nit da ngay ut ku la protéger mais bul ut koo xamee ne maanaam maanaam day dund sa kaw loolu il faut ngeen muus ci loolu noonu ndax chaque année xaaxum ni lay te chaque année ñu indi leen na ay naxakat lañ dama bëgg nag naxakat yi ñu xàmmee lañ te nag aussi tamit maa ngi lancé tamit benn appel ci ki nga xam ne mooy directeur général bu bu Sénélec doom maanaam doomu gox bi la monsieur Pape Demba Bitèye doomu gox bi la Kaolack la dëkk bëgg na Kaolack xam na Kaolack waaye nag dama koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi maanaam délestage yi Kaolack di am nit ñi maanaam nekk ci mbënd bi chaque maanaam chaque minute courant bi di coupé loolu nag dañ dañ ñaan ngir yàlla askan wi mënuñ koo wax. waye ñun mënañ la mën mënañ la ko ñaan ya ngi dimbalé ñeneen waye nak bul fàtte Kaolack dimbalé ñu ngir yalla manam nga jëm manam xam nañ sama bëggel ci Kaolack waye dimbalé ñu ngir yalla courant bi nu muy coupé bari na trop loolu nak bëgg nañ tamit nga bàyyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax ñu la koy ñaan solennellement monsieur le directeur général je vous remercie. dara baaxu ci yoonu numéro bi loolu duma ci wax ndax dara baaxu ci ndax manam ñaka baax motax chaque année ñi di dund li ñi dund ndax buñ baaxone maanaam askan bi wallahi alazim doo duñ dund lii ñuy dund te ñoom xamuñu xamuñu li askan bi dund ndax ñoom taluñ li askan bi dund ñoom seen bopp rek lañ tal taluñ leneen seen koñ biñ dëgg sax ñoom maanaam da koñ boobu sax moo gën a taa koñ bi ni léegi yow nga ne candidat la kon sëy bi dafa tas. xam nga su may wax damay wax ci gor su may wax damay wax ci ku ma du maanaam du ma wax ci koo xam ne gëmul li muy def koo xam ne commerçant la dafa bëgg a ñëw marchand de ñun nag ñun ñi nga xam ne ñun ay natif Kaolack fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo du nangu ku ñëw di marchande Kaolack gi ñu dëkk